ARMP la xam nga rapport bii moo tax fi mu toll nii coow dambuj li muy déranger c'est normal parce que man damaa nekk ci ministère bi bu nit ñi dee def loo xam du yoon dama koy nangu parce que xaalisu euh, ministère bi war ñu ko pasar pasare du samay wax rapport baa ngi nii rapport définitif bu ARMP la moom moo wax ni Serigne Mbaye Thiam xaalis bi ñu ko jox ci ministère éducation da koy pasar pasaree jaarul yoon marché ya marché bi marché gré à gré lay def bambulaa la bu ñu jëlee livre yi un six cent millions la ci def mais mënuñu fi jàpp barki démb Khalifa Sall jiñ ko un milliard huit cent millions Serigne Mbaye Thiam ci benn marché bu ndaw ministère éducation ay livres yu gone yu ndaw yi di jànge mu def ci un milliard six cent millions yoo xam ni ARMP nee jaarul yoon ba noppi moom kenn du ko yóbbu of nag mu leeral ko mu jëlaat tamit ministère éducation nationale cent quatre millions mu def ko pour peinture ministère bi jël huit cent soixante huit millions nga éducation cent quatre millions pour peinture ministère éducation nationale rapport bee ko wax ra ministère bu ndaw bii ministère éducation nga xam ne moog sa a tolloo wala moog sama kër nga xam ne boo amee deux millions wala trois millions peinture ko cent quatre millions la inscrit bi ARMP moo ko wax mu la ko peinturé ba noppi njombelu du loolu kese mm-hmm. ko rapport d' physique bi joxe ko mm-hmm. mbii wane ni la nga ci def maanaam rapport d' inspection yow xam nga ko da tabax mhm. ka ka ko tabax du moom moo koy firndeel mhm. dañuy jël beneen cabinet boo xam ne mooy dem xool lim fi liggéey mhm. ak lim déclaré ci xaalis wane ni li fi déclaré ci xaalis ak li ci liggéey ñoo ànd c' est bi gën a garaaw du boobu lycée Mariama Ba mooy lycée bi gën a tuut ci Sénégal xam nga ñaata élèves fa nekk ay deux cent trois élèves deux cent cinq élèves matuñu sax deux cent cinquante ñaata laa wax ne moom la huit cent soixante huit millions moo nekk ci budget bi mi ngi nii. ci rapport rapport éducation ministère te cabinet bii ko def cabinet MGP euh, cabinet euh, KPMG moo ko def te cabinet privé la moo ni Serigne Mbaye Thiam xaalisu ministère bi da koy pasar pasaree di ko def ci poosam di def lu